malaktu bi rabbi mo ci ndigalulu cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke xalif général des mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ci taxawaayu daayira muxaddamatul xidma daayira masalikul jinaan bu Touba Toulouse ca France ci njiital Mame Benda Ndiaye lëkkaloo ak daayira Touba xepp ndox mu neex ci njiital sëriñ Ousmane Mbàkke moom sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma ak sëriñ Moustapha moom sëriñ Moussa Mbàkke ànd kooku boroom xam-xam yi gën a kawee ci senegal ci wàllum ndox ñooy woo mbooleem jullit yi rawatina taalibe yi ci forage bu mag biñ fas yéenee liggéey ci armeelu Baxiya ci Touba Mbàkke lépp ngir saafara jafe yi nga xam ne moom lañ daan am ci wàllum ndox ci barab bi ndax àggoon na ci bu ñu daan waajal waay dawlu yi daan jëndi ay bido yi ndox loolee lañ fas ne saafara ginnaaw ñu ci amee ndigalu la Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalifa général des Mourides muy forage bu mag boo xamante nii day am doole ànd ak ndox mu neex te sell ba mën a alimenter mbooleem quartier bi nga xam ne moom moo nekkee ci bàq ya ñu xayma ko ci 60 millions de francs CFA liggéey bi nag ñu ciy woo mbooleem daayira yi nga xam ne dañuy liggéeyal Serigne Touba ak fépp fu ñu mën di nekk di ci woo daayira Touba ca kanam daayira Muxaddamatul Xidma di soññ mbooleem kuréelam yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ak ci diaspora bi yépp bu Touba Toulouse di woo ci liggéey bi ak soñño mbooleem daayira yi nga xam ne ñoo nekkee ci Europe bàyyiwuñ benn réew daayira Touba xepp ndox mu neex di soññ ci liggéey bi ak woo képp koo xam ne bëgg naa ñëw jàpp ci di ci woo mbooleem ñi nga xam ne dañuy yëngoo ci wàllum ndox di ci woo ak soññ aussi commune bu Touba ci njiital Abdoul Hadka liggéey bàngoog di forage bu mag bi nga xam ne moom lañ fas yéene liggéey ci armeelu Baqiya ngir saafara mboolem jafe-jafe yi nga xam ne moo fa amoon ci wàllum ndox liggéey ba ngoog ñu ci woo ñëpp bàyyiwuñ kenn képp koo xam ne am nga loo ci barkeeloo mën nga koo def ci numéro yi affiché am na Orange Money am na Wave muy 77 710 04 04 77 710 04 04 wala nga jokkoo ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu liggéey bi di ñaan képp ku taxaw ci liggéey bi yàlla faj say aajo ci barkeb Cheikhul Khadim liggéey ba ngoog ne ci ñëpp jàpp ñu liggéey ko ci ni mu gën a gaawee ay wa leen murid